عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق tey si nganub ambassadeur bu réewum Algérie ci këru diine yi ci prise de contact ak fex xam mbooleem këri diine yi li nga xam ne moom lañu fay yëngu bu nga xam ne coopération bi nga xam ne lañ ak réewu Sénégal ñu mu see andi ak saafara moom moo waral ki nga xam ne mooy ambassadeur bu réewum Algérie dëgg ay tànkam ñëwoon Medina bàyyi gannaaw ba mu li nga xam ne mooy école yi nga xam ne ñoo fa nekk yëpp di franco arabe ak institut islamique àndaan nag ki nga xam ne moo ku nge woon di Cheikh baaba jàlloo ñëw fii ci Medina Baye Kabatoki am na ay waxtaan yoo xam ne seq nañ ko fa ak imam bi ci teewaayu notable yi chef de quartier bi xam ne ñoo dëkk dëkk bi yëpp ñu teewlu leen wa rahmatullahi wa barakaatu nurahib bi duufina alkiram wa ala rasihim saadati safir aljazairi nurahibu bikum fi sénégal wa nurahibu bikum fi iqlimi kaolack wa nurahibu bikum fi hada alxayi xayi kabatuuki bismi raisi allazi huwa jalisun maak ala janbik fa antum duyufun kiramun lana fa antum duyufun kiramun بالنسبة لنا لأن علاقات الطيبة التي تربط الجزائر بالسنغال علاقات قديمة ووثيقة وقوية لأنها علاقات تنبني على الأقوى الإسلامية وعلى وعلى الأسس الثقافية والصوفية fa chaabu sénégal wa chaabu aljazair kilahuma chaabu muslim ايضا كثير من علماء السنغال درسوا في الجزائر والان قد احتلوا مراكز عليا في الدوله فالفضل في هذا يرجع الى الجزائريين وايضا مؤسس طريقه تجاني شيخ احمد تجاني من اهل الجزائر إذا كل هذه العلاقات التي تربط السنغال بالجزائر علاقة قوية وقديمة وأعتقد أنها ستبقى هكذا إلى الأبد جيد بالإضافة إلى ذلك فمضيفكم هذا شيخ بابا جالو أيضا يعمل ليل النهار لتقوية هذه العلاقات lakin mumkin yumkin an nushhidakum annahu muhibbun aydan li watani wa li biladi yaamalu leyla nahaara fi majalatin muxtalifa li tadmiyati hadihi albilad fa wa yaamal fi majali tarbiyati wa taalim wa yaamal kadalik fi mad fi fi majali sixa wa kadalik fi lijtimaa kullu hada li saalihi li saalihi baladi actaqid shaxsuka hada yaxtaaju ila daamin maanawiyin wa maddi min qibalikum laa kullu Cheikh Ahmed Baba Diallo faqat lakin hada alxayi min alkawla kama tarawna yaxtaaju min qibalikum musaada maddi min qibalikum qadra listitaa li annakum ixwa wa shaxsu daiman yajib an yataawan ma ixwaati fa antum ixwa binisba lana وهذه العلاقة كما قلت علاقة قديمة ووثيقة وستبقى هكذا إلى الأبد نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنالوا من زيارتكم هذه ما يناله الزائرون في الله من أجر وثواب عاش السنغال عاش دولة الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Je suis vraiment très heureux d'être parmi mes frères. Cet accueil chaleureux vraiment me, me fait chaud, chaud au cœur. C'est ma première visite et ça me donne l'envie déjà de retourner, de revenir et de revenir souvent, euh, c'est une ville que j'ai bien appréciée. La population est très accueillante. Je crois que c'est peut-être parce que effectivement la relation est profonde sur le plan spirituel entre l'Algérie et le Sénégal. Euh, en tant qu'ambassadeur, euh, bien sûr, je ferai en sorte que cette relation se développe encore davantage et se répercute positivement et concrètement sur euh, toutes les, tout, tous nos interlocuteurs, euh, euh, parmi lesquels, bien sûr, vous-même, Imam, vraiment, vous avez dit des choses je, je, je, ne dirai jamais mieux que ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la relation entre les deux pays. Et pour moi, c'est vraiment un défi que vous me lancez pour que cette relation soit toujours durable et le contact soit toujours maintenu à, à tous les niveaux. Inch'Allah, je, je vois que le, la mosquée est en, déjà en construction, ça veut dire que le, le gros a été fait, puisque euh, le, le plus important, c'est de lancer. Donc, Alhamdoulilah, je vois qu'il y a un toit, je vois qu'il y a la mosquée qui fonctionne déjà, qu'il y a un imam, mashallah, qu'il y a le, bien sûr je, le chef de quartier qui est toujours là, présent, euh, les autres aussi notables de, de la ville. Et c'est vraiment c'est, ça, ça, ça, c'est encourageant, c'est encourageant. Tout ce que je peux vous dire, c'est de, donc de vous encourager à rester toujours persévérant et que Dieu vous, bien sûr vous assiste dans, dans, dans, dans votre mission. Et on gardera toujours le contact avec euh, nos frères et on verra que ce, que, ce, qu'on, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire pour justement que cette relation, ce contact soit toujours plus concret et soit toujours maintenu de manière, euh, euh de manière assez, assez profonde.

Oui, le Seigneur m'a dit tout à l'heure de vous, de vous rappeler relation qui le lie avec ses vieux. sont des notables des quartiers, mais comme je viens de le dire tout à l'heure, sont ses conseils. Il n'arrête de, lui conseiller. Mais aussi, sont ses proches. Euh, papa, il dit, c'est comme son papa. Le cerf, il a perdu son père très à, à bas âge. Mais euh, l'exemple, comme l'autre, l'imam Ratib, qui est euh, papa Ismaïla, il considère Serh Baba comme son fils. wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam muallim albasariya alxaatibatan almabuusi rahmatan wa hidayatan linnaasi ajmaa alqaayil fi sunnanihi algarra man kaana yuminu billahi wa yowmi alaaxiri falyukrim dayfahu wa ala alihi wa sahbihi guril mayamin wa man daa bi daawatihim wa sanna bi sunnatihim ila yowmi tanaad wa baad iqwat alhudur aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ayuha saada ayuha jamul karim saadatu saadatu safir walwafdu almurafiq lahu ila hadihi alqaatu almubaraka duyuf rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bilmunasaba raqani an aqifa amamakum bi sifati wahidan min talamidi cheikh baba diallo wa bi niyabatin kaafati almuridin li ilqaai hadihi alkalimat alwajiza ixtinaman li hadihi alfursati aljamila di tarxib bi day fi zaidi wa jamia man maahu fi xatawaatihim almubaraka bada an min medinat min medinati baay Kaolack xaysu cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim alxalifatu am li faydati li faydati tijaaniya alxalifatu am li faydati ibrahimiya mururan ila huna hadihi hadihi alqariya huwa qaryatuna Euh, Kabutoki euh, fi fi fi fi xareti lezi euh, fiha makanu lezi xaasatan li ahli lmadina misla hadihi lmadinatu allati samaha bi madinati Cheikh Ibrahim Niass kama qaala saair sara laha sirru madinati barhama sirruha yaxtadi saari bi daaxiliha huwa hadihi lmadina asasaha a cheikh li tarbiyati wal irsaad huwa alladi jamaana fi hadihi al makan ila huna haysu hadihi al wujuhi tayyiba al maarufa bi takrimi duyuf saadatu safir inna cheikh baba diallo wa jamiu muridihi la fi gaayati saadati wa surir wa mumtanina lakum li jalatin la tusifu bi hukmi mawjudatikum li jabaa allati tabzulunaha min faniyati al axra fi l aradi sénégalia tarsiqan li juzuri alaqaati allati tarbitu albaladayni xaysu anna lahum xaysu annaha lam takun walidatan lahdatin wa innama hiya qadima nasaatun mundu sanina gaabiratan li ictibaari satta minha ma hiya diiniya wa yumkinu zikra tariqati tijaniya fi hadi al itar ka jisrin tawasil bayna jazair wa sénégal wa minha kadalika ma tamuttu ila alaqaati diplomasiya wa siyasiya wal ijtimaia bi silla wa ala ayin fa nahnu iz nurahibu bikum fi hadhihi al-maqam al-karim fa innana nazhiru lakum mahabbata Cheikh Baba Diallo wa ta'kidan li shukrihi al-jazili ila siyadatikum al-muqarrar dhalika anna al-kalimat bi haddi dhatiha ajizan an wasi ma tukinnuha dama'ira lakum wa akhiran narju min allahi an yasbita uqtaakum wa yukallilu masaakum bi tawfiq wa najah wa yaj'al lakum marji'an lil isra'il حضاري ودبلوماسي مدى الحياة عاصت علاقة السنغالية الجزائرية عاصت علاقة السنغالية الجزائرية asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. di leen wax ne sama diggante ak lu ko waral yàlla def na man comme maa ngi tukki maa ngi koy wax démb xale yi ne leen lii na ngeen ci jànge yéen ñi ma toog mooy njub rek mooy dëgg su doon damay tukki nekk ci njubadi wala nekk ci loo xam ne diine bëgg ko wala loo xam ne su ma nekkee fii wane leen jub su ma tukkee wane leneen lii du ñëw waaye dama ànd ak tukki ay nit nekk ci aéroport nekk ci avion tukki ñu may gis xool sama comportement ak li ñu gis ci man ci diine ba ambassadeur bi ñëwee ñu affecté ko fii ba fi ci ñëwee léegi matul 6 mois mu dem ci dëkk yëpp muy Touba Tivaouane Ndiassane bañ demee bañ ne Medina Baye lay dem diplomatie ne Cheikh Baba Diallo moo ñu doy. pour mu yóbbu ñu Medina Baye loolu nag sant yàlla bu rëy la ci buñ gisuloon ci man jikko ju rafet buñ gisuloon ci man diine ak njub duñ sawar ci loolu te fuñ mënoon jaar dem Medina bëri na waaye ñu jaar la ko ci man ñu invité ma foofu démb falaa ndékkee ci ambassade ba yendoo ak ñoom tey ñu ne bu soobee yàlla danañ ñëw man ba may ba ñuy waxtaan ci diplomatie ak ci wàllu itinéraire boole mu ci woon Kabatoki waaye protocole bii Mokhtar moo Cheikh baaba dañuy ñëw Kabuto gi ma ne ko déet nañ dem rek li ñu tax a jóg comme que yéen kër diine yi ñoo leen tax a jóg man su ma demee mbir nag doy na waaye nag ma sant ci yàlla waaye u oustaz Lo borom dëkk ak mboolem kilifa yi man Kabuto gi laa am lépp lu mu mën am Kabuto gi moo ma gënal su ma amee ku mel ni tey ambassadeur di ñëw Kaolack ne ma damay ñëw ci yow mënoon naa ko yóbbu rek ci kër gi wala ma yóbbu sama kër yaay wala ma ñëw déedéet mais dama ne ko man Kabatoki gi la am suma ñëwee dama bëgg gis waa Kabatoki ñu xam ne man ñii ñooy sama kilifa kon maa ngi mbég ci waa Kabatoki yëpp di leen xamal ne ñaanal leen ñu yàlla suñ diplomatie ak suñ yëngutu yëpp bëgg nañ fii ci Kabatoki mboolem luy autorité étatique mboolem luy autorité religieuse teg fi tàngam loolu ngeen ñaanama yàlla te ñaanama yàlla njub gi ñu gis ci man ba tax ñu ñëw sama gannaaw di ñëw loolu ngeen ñaanama yàlla saxal ko maa ngi gërëm mbokk taalibe yëpp ci seen itte seen taxawaay wax dëgg yàlla man toogatuma waaye ku mel ni jibidi ak ñoom ñëm ñëm yépp su ma limee duma duma matal waaye spécialement euh, Mor Fall nga xam ne wax dëgg yàlla démb ba ñoo nekk ci mbir mi ci liggéey bu rafet bi ñuy def diplomatie bi ak protocole bi ba tey li mën a aboutir maa ngi gërëm ñëpp wax dëgg yàlla bëgg naa li mbokk taal yëpp seen tur waaye xamante ngeen ak man yàlla na yàlla dimbale leen yàlla na yàlla taxaw leen Oustaz Lo ñi ngi kontaan doy loola moo tax ñu ne jëlal kàddu ci turu dëkk bi parce que ñoom dégguñ olof kon lii moo la moo taxoon ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant yëpp. tëddër bi ak délégation bi nga xam ne ñoom la àndal gannaaw buñ julee tàkku tàkkusaan fii ci Medina Baye Kaputoki amal ay waxtaan yoo xam ne waxtaan yu yaatu la xamante ak ñi nga xam ne ñooñoo notable dëkk bi ak imaam bi ci teewaayu mbooloo mu takku Cheikh Baba Diallo dalal na leen fii nga xam ne moom mooy këram gannaaw bi nga xamee defar na leen ay bernde yu baax a baax a baax décoré na ki nga xam ne mooy ambassadeur bi. ak ki nga xam ne aussi moom mooy conseiller premier conseiller ambassadeur bi ci teewaayu ñi nga xam ne ñoo lañ jox kado yi mooy imaam bi ak ki nga xam ne mooy chef de quartier bi gannaaw loolu ambassadeur bi ak délégation am kontaan trop dal di wëññeekuwaat delluwaat ci ndakaaru di ñaan yàlla tamit ñu waat fi si jàmm ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooñu kabatoo ki accueil bi nga xam ne moom lañu ñu accueillir di yi boo xam ne rendre na leen très heureux beneen yoon ci Barham Universel Media